bi ci des xawama ko sax ñeme tudd waaye lu am solo ndax dafa aju ci harmonie bi nekk diggante ruux ak fitra ak harmonie bi nekk diggante nafsa ak atifa bu ko defee mantiq di seen interprète dama am ñaari sët yu tuuti te ngeen baal ma de parce que wax bi rafetu waaye bu bu ma ko waxul du sotti wante wax bi rafetu ñu doxantu tuuti ki xaw a mag tuuti ni ma maam ma ñu ko si mu ni ma am na ko doxat de wax ko ak benn sérieux dama tiit sax ni ko du man de mu nangu ko ak benn sérieux dama tiit sax ma xalaat ni fitram nafsom fayewu ko taatifaam itam nafsom fayewu ko parce que bu fekkoon nafs bi jot na ci aatifa su ko waxee rek xaaxataay te su ma ko tontoo it mu xaaxataay mais benn sérieux boobu la nekki ba ñu dox tuuti rakk ji nag fitra bi amagul doole ci mantiqam rakk ji parce que mënagul wax waaye moo mujj résoudre problème bi ndax moo nu joxoñ canal bi ñu dem ba jub canal bi rekk kenn mënul noyyi مات بيني ما ان كي مو ما خين والله لولا يالا دوغال لوني ني داما سي دان ديف واي داما كو دان جيمانتو لو ني يالا خام نكو بور واخال رك ني يو ديفال ليغا مان مي بايل خيل يالا سي سا دوم واو loolu rek mooy li ci am solo waaye yarantu yii moo xam ya ca lekkool ba la moo xam ya ca kër ga la moo xam ya ca daara ja la yarantu rekk la waaye yar piir ku ko bëgg foog nga associé ci sunu borom mënul ñàkk bari ki dem ci mujj xale yu tuuti gannaaw timis ñu ngi sow sow ndànk rek ma ni ma yéen yéen ñii fu ngeen jóge ñu ni ñu nga jóge Daniel Sorano lu ngeen fa doon wuti dañu doon seeti dernier film dernier film bu Michael Jackson ma ni waaw lu ngeen di dee yónnee ak di ko werante ñu ni juróom-ñeent fukki turi sunu borom yi ak juróom-ñeent lan moo ko téeméeral wax la ni ñàkk yaakaar ci xaleel jaaduwul parce que loolu mag sax du poser question bu grave noonu mag sax du poser <laughs> question bu grave noonu ni banturu yàlla moo ko téeméereel man leen roog seen parce que ku nekk ak sa bos waaye turam dëgg-dëgg moom rekk a ko xam waaw yi ci des yëpp melo la melo yi la ñuy tuddee tur waaye turam moom moom rekk moo ko xam yonent xamu ko malaaka xamu ko jinne xamu jabar xamu yàlla rek a xam na mu tudd ndax boo allah la arab yee ko moom nga ni jë tubaab yee ko moom nga wax ni nga santale ko seen séeréer see ko moom ba tax na turam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom rekk moo ko xam keneen xamu ko te fit wi dafa dëgër sunu borom fit wi fit wi dafa dëgër ndax xam na nit du ñàkk dara keneen a koy ñàkk moom waaye moom du ñàkk kenn du ñàkk dara loolu moo tax sunu mbokk catholique yi chrétien yi am na ñaan gu ñuy ñaan ñaan gu am solo mooy bés bu àjjana jeexee safara jeex arash ak kursi yu jeex malaka amatul jinne amatul nit amatul beneen mbindeef amatul ba wuxdaaniya dellu ci wuxdaaniya yàlla kese moom rekk ak boppam booba lay wooye boppam nag tur wa mu xam te kenn xam moo tax sunu mbokk chrétien yi di wax ni bu bés booba yal na nga ñu seeyal ci diggante waxdaaniyatul waxdaaniya ñaan la ñaan bu am solo mu mel ni kon bu nu ko woyofalee rekk du baax dëgg la nag li Maodo wax façon bu nekk tagg na ko yonent bi wante nee na ñaari baat rekk laa ci gëm àttan ci xeex mooy Abdullahi ko jur ak Amina pour won la ni yi ci des yëpp neexal gàmmu la rekk mais mëtu ko am na koo xam ni màggaayam ak privilège am moo àgg ci boo tuddee papaam dudd yaayam rekk loo ca teg danga sawar waaw Maodo noonu la mel te teewul gis nga li mu wax ci yonent bi kenn xamul nu mu toll waaye li mu ci gëm te gëm ko mooy Abdallahi ko jur ak Amina te doy na doy na sëkk doy na sëkk li ci des yëpp neexal gàmmu rekk la waaw mu rëy mbëtt mu dugg féeg nangam nangam batay tey aayul wettal la waaye li mu wax ku dëgër fit la moom itam mawdo ndax léeg-léeg mu wax lu nga xam ni du xam kan ci tënku ku dëgër fit la waaw moo tax tabarkal la philosophème daf nu yàq philosophème moo nu yàq ndax ragalu nu dara dara ci kaw suuf ndax yàlla ak jëmmam philosophie am dafa doy waar Serigne Alioune nee na dama toog ak moom ñuy waxtaan mu ni ma gis nga rekk di toog ak nit di waxtaan ak moom mu di la tontu ngeen di yëyandoo guro fekk du moom moom xëy na ca suba voyagé mu nga jëm barsax bëgg fa daje kenn ci saalixiin ndax problème bu ñu séq ñoom ñaar bi ma ko waxee mënuma ko laaj na na muy demee te itam gëm naa ko wante awma fu ma teg ngëm gi ndax ci karama rekk laa koy mëna teg te Maodo gëmul karaama gëmu ko xam na ni lu nekk la mais du ci tabax dundam te man ci karaama rekk laa koy mëna a delloo te moom nag gëmul karaama walla bu ko gëmee du ca tabax dundam kenn mënul fexe ba mu tabax ci dundam mbiram kenn xamul lan dina di wax ni looloo tax sëñ kër si dëgër bopp waaw am na koo xam ni ku mu yar foog nga dëgër bopp waaw yàllaa te ma bay waaye at bu jot maa ngi ci di xalaat at bu jot maa ngi ci di xalaat di jaaxle rekk nit kii di waxtaan ak yow di lekkandoog yow di naanandoog yow te ca suba la xëy voyager dem barsax pour rencontrer fa ay saalixiin bu bu bu dul karaama duma ko dégg te ki ko wax gëmul karaama ma di ca dem di ca dem ba soog a gis bunt ba ndeke jafe nga demewul noonu formation ba moo jafe ci cadre formation lay doon waaye du doon ci kaadaru karaama te kenn mënu ko weddi ndax Mor Diama mii walla Jean Pierre mii juddu ni wee ñu nàmpal di dundal ba mu xëy fer ñu di ko dundal ba mu war dem lekkool ñu yóbbu ko lekkool muy jàng ba commission d'orientation yi jot ci mom ñok mom ba duggal ko ci bir kambu science mu nekk ci ba inventé lo xamni kër dem tay fekk ko fa te génnul cadre ilma ak mantiq seetal lolu génnul cadre ilma ak mantiq waaw ki nga xam ni nag dañu ko former ci kaadar bu nga xam ni diggante ruux la ak fitra kooku fu fu mu lu mu mënul amul wante du karaama formation rekk la looloo nga gis ci ñoom kuy seetaan nu dëjëm di nga gis ci ñoom kuy seetaan dëju boppam tàgge nañ ko ma nga taxaw di xool ñu koy tàgge ah ma nga bër sax déjà ñu ngi koy sang mi nga xool ñu koy sang ñu ngi koy sang mi nga xool ñu koy sang ñu ngi koy ñaanal mi ngi xool ñu koy ñaanal ñu ngi koy suul mi ngi xool ñu koy suul fekk na ma nga moom ma nga bar sax moo tax yëf yi ni ñu ko foogi demewul noonu te barsax nag ay station yu dul jeex la waaw koo soxla bu fekkee sa formation àgg na fa koo soxla mën nañ la wax mën nañ la wax fan la nekk ci ban station seetal loolu waaye ñun façon biñ ko déggi dafa terre bu mu ëpp te boobu doxul moo tax am na nu maam am nañu maam bu ñuy wax maam Cerno mooy jur Alaaji Abdu Kan ca Kawlax Alaaji Abdu Kan daf daan wax ni xawma jëf ju rëy jëf ju yàlla nangu laa xam xawma jëf ju jëf ju yàlla nangu laa mu dellu ci li Cheikh waxoon ña ko doon ñaan jaar ci الصراط المستقيم ونلين الاستقامة في هذا الوقت غير ممكن كم نيخ من كو ويدي وانت الشيخ دو كو ويدي تمام رك مو ام سولو بور نيون موم خم نكو الاستقامة في هذا الوقت غير ممكن ku ko gën a fonk sharia amul wante daan na wax ni ma fi lkutubi alfiqhiyati illa alxusumaat te kenn gënu ko fonk sharia waaye dafay xam ni ñi taalif téere yi ëpp ñu ko taalibe loolu dafay am te jayuñu ko nag fa mu war a yam lañ koy yemale yonenti bi sax limuy for foor fañu ko wara yemale lañ ko yemal ndax yalla ko wax ci alquran yalla ko wax ni ko bul dig nit ñi ngëm ndax nekkul ci sa lox ci sama lox la nekk man ku ma neex nga gëm ku ma neexul mu wàcc la te feñal nako te yàlla feñal nako parce que keroog bañ koo xàññee ñëpp daw kay jubluwu ci woon lu dul ni leen lii laa leen waxoon pour wax la ni ñoom it ñu ngeeg seeni yëf mu dellu ci li ma doon wax ci Omar ibnul Xattaab ni mu bëgge woon jullit bu nekk di dox doxinu yonent bi te loolu mënul nekk xëy na ñi nekk sportif mën nañu ko ñi nekkul sportif mënuñu ko léeg-léeg nga xam gis ñoo xam ni ñoom dañuy sëriñ sëriñ lu waaw di xawa sëqët sëqët loo modd sëqët yéeg xëcc laafa ba ci nopp yi dafa ni pour nga gëm leen te fekk ne du noonu moo tax mu daan leen dóor karawaas ba ñu ni ko du noonu bàyyi ko ah parce que yàlla wax na ni ku gëm moo la gëmloo kooku ay karawaas amu ci ci solo ba mujj mu bàyyi ko Seydina Aliyu moom moo jàppoon ni violence verbale mën na ci dara looloo tax fu mu seen groupe bu góor yu taxaw taxawaalu defuñu dara mu yuuxu leen moom violence verbale la ko daan faje وجوه لين يا أشباه الرجال